dañ koy wax xaqtaay rek waaye ree rek gu am kàddu lañ ci jublu te tàmbalee wax yi yàq julli mu njëkk wax nag bi julli ree ree gu am kàddu ni mu waxe moom kuy julli bu xasee ree ree gu am kàddu rek julli ga yàqu na moo xam moom rekk di julli wala day ilimaan wala day maamoom moo xam moo ko tey moo xam daa juum moo xam da ko rëcc te it ci ni waxi moom ilimaan ji nga xam ne mooy jiite bu reeyee bañ ne jullim yàqu na ñoom doon jiite itam seen julli day yàqoo nga xam ne kon daal ci ni waxee kuy julli ree rek ree ga yàq na julli ga waaye nag ibnul xaasim moom dafa teqale waaye nag ibnul xaasim moom dafa teqale wax ne kenn képp moom bu dee julli ree reegu am kàddu reegu am kàddu julli ga yàqu na na dagg te tàmbaliwaat bu dee ilimaan nag mooy jiite ba yàgg mu ree te moo ko tey na xam ne kon julli ga yàqu na na dagg tàmbaliwaat ñu ànd ak moom it tàmbaliwaat ni moom da caa teg nag ne bu fekkoon ne ilimaan ree ga mu ree fàttee tax mbaa da ko rëcc kon day deltu gannaaw wutal keneen kooku àggale julli ga moom nag mu bokk ca maamoom ya buñ jullee ba sëlmal moom ilimaan ji reewoon te soppi ko woon maamoom na julliwaat jàpp ne julleem bu njëkk ga baaxutoon am na sax ñu ne julli googu baax na ndax ndegam reeja fàtte mbaa rëcc rek la du yàqu sàmmoonte waxi ñooñu sax moo tax ñu wax ko bu wutalee bu bokkaat ci maamoom ya te bañ a bàyyi julli ga dem bañ a tàmbaliwaat geneen waaye daal bu ci àndee noonu ba ilimaan sëlmalit maanaam ka mu wutal sëlmalit day baamuwaat julli ga ñi ci des nag moom seen julli baax na bu dee nag maamoom moo ree reegu am kàddu dañ koy wax ne ko sa julli moom yàqu na waaye nag war ngaa sàmmunteeg ilimaan ji ba doo fi bàyyi julli gi da ngay ànd ak moom ba mu sëlmal nga armalaat julli julli gu yees ndax gii moom yàqu na waaye nag am na ay takk-takk yoo xam ne mooy tax ñu wax ko loolu day fekk reeja doon ak rëcc wala ak fàtte nde bu fekkee ne reeja moo ko tey dañu dogu ne julli gi yàqu na kon na dagg rek armalaat ànd ilimaan ci la ko desee ca julli ga te it julli ga bañ a doon julli jumaa bu dee julli jumaa dañ koy wax ne ko dalal di armalaat ànd ci julli jumaa gi ndax julli jumaa bu la rawee amaat ko day jafe te it waxtu wa yaatu nga xam ne bu ànd ilimaan ci julleem gi yàqu ba ilimaan sëlmal muy julliwaat julli bopp dana am ci waxtu lu ma tub rakka su waxtu waxatee ba nga xamee ne bu ilimaan sëlmalee du amaat sax ab rakka bu dee julli julli boppam dañ koy wax ne ko daggal te ànd ilimaan li ko dese ci julli bul xaar mu julli ba àggal te it ree ga mu ree mu mën koo bàyyi te du reeloo ñi ca des su fekkee ne mëntu bàyyi ree ji te nar naa reeloo ña ca des kooku day war mu dagg moom te génn foofa ndax yàq julli boppam doy na waaye yàqaale julli ñi ci des moom ëpp naa def nga dolli ci nag reexam joojee ci dëgg-dëgg bañ a bari su fekkee ne reeju xas na bari ba noppi moom julli ga yàqu na ndax day mel ni kuy julli jëf ci jëf yu bari yu bokkul ci julli su boobaa kon na dagg fa saasa dal di ànd ilimaan te la ko desee ci julli ga bul fàtte nag ne bàyyi reeja moom mënu caa ñàkk ndax bu fekkee ne mënta bàyyi ree ji te bu reexee rek reeloo ñu ca des faaw daa war a dagg moom gaaw génn kuy julli ba ci biir am njàppam toj wala ak tiimam toj julli ba yàqu na doonte sax da ko rëcc mbaa mu fàtte woon ne ci julli la nekk tax mu toj njàpp ma du tee julli ko yàqu wala muy julli ba ci biir mu fàttaliku ne moom kat am njàppam tojoon na wala moom sax jàpputoon far wala tiimoo farataam te moom tiimutoon loolu lépp julli boppam moom yàqu na bu fekkee mu doon jiite nag su dalee di bàyyi te saasay saasa nga xam ne defaatul dara ca julli ga ña mu doon jiite ñoom seen julli baax na dara sikku ca ku ca ne mën ngaa àggale sa julli bopp mën nañoo jiital kenn ci ñoom itam mu jiite leen moom mi ilimaan ji sax laata muy dem lañ gën a taamu mooy mu wutal kenn mu àggale julli ga mu door a dem su ilimaan jiitee nag ba sëlmal moo xam kenn la doon jiite wala mbooloo buñ sëlmalee la door a fàttaliku ne moom kat jàpputoon mbaa tiimutoon mbaa sanguutoon farata moom dong la ak julleem di yàqu waaye ñi mu jiite ba sëlmal ñoom ñëpp ñoom baax la nañu dafa jàll ci yi yàq julli tudd ci lekk ak naan ak ëf ak gimiñ ëf ak gimiñ moo gën a néew ay wax see boo njëkk koo wax ëf ak gimiñ moom su ko teyee rek la yàq julli su fekkee teyu ko bu sujjóot ba xadd salaam lekk naan nag am na teqale lekk ga ndegam moo ko tey lu mu néew néew dana yàq julli ga ni ki doonte benn tig la te sàq mi ne ko boole ca benn ti bëriwut waaye sàq mi ga mooy tax julli ga yàqu nde doon benn tig mu wann ko rek te sàq miwu ko julli ga du yàqu nee nañu ba tey bu amoon lu des ci ay diggante bëñam mu daal di koy wann doonte sàq mi won na ko door koo wann it waaye ca bëñ yi rek la bàyyi ko sàq mi nga door koo wann du tax julli ga yàqu ndax dañu xam loolu mënta am solo lu nekk ci diggante ay bëñ mu mënta am solo naan it lu mu naan lum néew néew ci bi muy julli te moo ko tey boole ci julli ga yàqu na ndegam nag ci ak tey la wax seetal kon bu fekkee ne lekk ga wala naan nga tëyu ko da ngay wax ne lekk naan su fekkee boolewu leen def ñoom ñaar ñëpp lenn képp la ca def te itam bëriwut te itam tëyu ko kon julli ga dara sikku ca day sujjóot rekk bax da salaam waaye nag su boolee lekk naan doonte kenn ca bëriwut julli ga daldi yàqu wàccu mi wax moom it su dee julli tay ko wàccu ni ki muy julli tay ko jël baaraamam dugal ci gimiñam ñoddi wàccu ma génn doonte wàccu ma dafa laab mel ne bu muy door lekk ñam wa it du tey julli ga yàqu su fekkee wàccu ma nag teyu ko sawluwu ko da ko rëcc rek lay tey julli ga yàqu muy wàccu ma laab ba noppi mu bañ caa wann dara dara dara dara tayit diir waccu ba yeggut su fekkee ne waccu ma dafa soppiku lam waccu melut na meloon ba mu koy lekk mbaa am na lum ci wann mbaa diir waccu ba dafa yàgg ba tey julli ga day yàqu ba tey bu dee julli daal di wax asalaamaaleykum te tey ko te xam ne julli gi matut mbaa boog muy sikki sàkk rek ndax julli gi mat na baa matut dal di wax asalaamaaleykum moo xam kenn la kuy julli moo xam ilimaan la moo xam maamam la julli ga day yàqoo de sax bu waxoon asalaamaaleykum joo xam ne njuumte rekk tax moom julli ga di yàqu day yéenee mottali julli ga daal di koy mottali te bu julli ga matee nag mu sujjóot bax da salaam bu dee julli itam ba ci biir mu dogo ci bàyyi julli gi moo xam dane naa ko bàyyi defi nangam te ñëwaat julliwaat wala naa wacc saa njàpp mi bàyyi julli gi dem yeesal ko ñëwaat lu mu ci mën doon rek julli googu yàqu na ba wàccee yéene ji rek la julli ga yàqu bu dogu woon ci naa far àggal rek du tax mu baax bu dee julli itam wax wax joo xam ne moo ko tey te ajuwul ca julli ga maanaam defar julli ga taxut wax ja lum néew néew daal di yàq julli gi ci bu ne woon waaw rek wala déet rek du tey julli ga yàqu su fekkoon ne defar julli ga moo tax mu wax mu wax itam lu yem rek dañu ëpp mel na ilimaan dafa am ñaari ràkka sëlmal mbaa julli gi mat ba noppi mu jóg mel ne da cay dolli ab ràkka buñ ko sàbbaalee te xamut liñ koy sàbbaal mënees naa wax ak moom ne ko ne ko dangaa sëlmal ci ñaari ràkk rek wala ñu ne ko dangaa jëm ci ràkk ndolleel su fekkee loolu da ko wóor mu sikki sàkka daal laaj ba xam loolu am na am déet mën nañ koo tontu ci waaw wala déet tontu lu yem rek gàtt lu mel ni daal moom du yàq julli waaye nag wax ja bu dee defar julli ga itam bu xësee bari rek ba jawduwut daal di yàq julli ga mu des nag di julli wax wax joo xam ne dafa juum rek waaye tëye ko moom dañ cay teqale bu baree ak bu bariwut su baree la ñu doon doon njuumte dana yàq julli ga su bariwut nag du yàq julli ga koo xam ne dangaa dikk ànd ak kii julli mu jiite la amoo ci sax yow benn rakka bu mat bu dee sujjóot xabla salaam day yow boo ci ànd ndax ndég ndax ndégam amoo ci julleem lu matub rakk rek doona góoroon ma moom kon bu ilimaan ba dee sujjóot xabla salaam nga ànd ak moom sëb julli yàqu loolu nag mën naa amee ci yow fekk yow lu mat ab ràkk ci julli ga ilimaan di sujjóot xabla salaam nga daal di ànd ak moom naka mu sëlmal nga jóg daal di julli ba sëlmal julli googu bu baax ndax ànd nga nga ànd ak ilimaan xabla salaam te yow fekk na amoo woon ci julleem lu matub ràkka ba tey bu fekkee ne ilimaan moom dafa sëlmal di def sujjóotu bax de salaam koo xam ne dafa laa rawoon da nga xam ne yow sa julli àggagut da ngaa war a fay ba àggal door a def bax de salaam léegi nag soo defandoog moom bax de salaam boobee sa julli yàqu moo xam fekk nga ci julleem lu matub ràkk wala fekki woo ci lu matub ràkk ñoo ci yemoo moom daal soo defandoog moom bax de salaam rek te fekk mu raw la rek sa julli yàqu waaye nag nee nañu yaar yëpp kat lu ci nekk bu ko defee ci tey la julleem di yàqu maanaam su fekkee ni maamoom mi amul ci julli ilimaan lu matu rakk ilimaan di def xabla salaam mu daal di ànd ak moom ñu wax ne julleem day yàqu bu ko teyee mbaa mu umpale lay yàqu waaye bu fekkee njuumtee tax moom day sujjóot rek ba xam de salaam ba tey it bu ilimaan dee sujjóot ba xam de salaam mu daal di ànd ak moom def ko te fekk moom da ko raw daa waroon na fay ba noppi su fekkee njuumte rek a tax kon julleem baax na day sujjóot rek ba xam de salaam waaye su ko teyee nag mbaa ñàkk xam waral ko moom julli ngoogu yàqu ba tey bu fekkee dafa wàññi woon ci julli gi lu mat ñetti sunna mbaa mu ëpp ko ñu waxoon ko ne ko da ngay sujjóot xabla salaam moom nag mu fàttee sujjóot ba mu sëlmal ba mu yàgg mbaa mu jóg fu mu doon jullee kon julli ga yàqu na ndegam la waraloon xabla salaam ba lu ma ñett suna la mbaa lu ko ëpp rek te fàtte na ko ba sëlmal ba mu yàgg mbaa mu jóg fu mu doon jullee julli ga yàqu na bu fekkoon ne nag la wàññi woon benn sunna la wala ñaar bu xasee yàgg da koy far bàyyi noonu rek du aajowoo mu di ko defati te it julli ga baax na dara sikku ca saa yu ko digalee xabla salaam nag mu fàtte ko ba sëlmal waaye yàggut da koy def rek mu soppiku bax de salaam te du ca wàññi dara saa yu dee julli yokk ci julli gi ponk boo xam ne ponk bu jëf la ni ki rukkoo mbaa sujjóot julli ga dal na yàqu rawante na nag mu yokk ca rakk bu lum te tey ko loolu lépp julli ga yàqu na dañu wax nag bu ci yokkoon ponk boo xam ne ponk bu wax la ni ki bu jàng faatiha yaari yoon te tey ko du tax julli ga yàqu ci wax ji gën a wóor ponk yi nga xam ne wax lañu ci julli gi ñett lañu baabaru armal ak jàng faatiha ak wax asalaamaaleykum ñetti ponk ji moom nee nañu comme ci tey dolli ko itam du tax julli nga yàqu waaye ponk si des nga xam ne ponk jëf lañu bu mu ci tey dolli ko julli gi rek mu yàqu wa tax fara binaa wa ama in zaada ruknan qawliyan kama law karara alfatihata amidan fala tabtulu salaatuhu ala almuctamad li annaha zikrun wa arkaanuha alqawliyatu talaata takbiratu lixraami walfatihatu wassalaam wa baqiyatu arkaaniha afaalun ay jëf lañu aw ba tey su bàyyee ngëneel rek tax mu daal di sujjóot xam ne salaam ne daa koy defare ngëneel li mu bàyyi mel ni mu bàyyi xunóor rek daal di koy sujjóotal ba tey julli ga yàqu ba tey itam na fàttaliku ne bàyyi benn sunna donkat su fekkee du yelu mbaa biral du jara sujjóotal ni ki bàyyi benn allah akbar wala bàyyi samiha allahu liman hamida lu mu ca bàyyi muy benn sunna la waaye du ko sujjóotal bu ko sujjóotalee rek julloom yàqu yelu nag mbaa biral moom kenn ku ci nekk sunna la bu daru te ku ko bàyyi am na sujjóot buñ la cay digal ndax ku bàyyi yeru day mel ne daa yokk ñu digal ko sujjóot bax de salaam ku bàyyi biral dafa mel ne ku wàññi ko defee ñu digal ko mu sujjóot xabla salaam bu dee julli tey ko daal di bàyyi farata bañ koo def wala mu tey ko bàyyi ab sart nit ki balee jublu xibla te mën naa jublu xibla fàttewu ko deful dara julli ko daal di yàqu ndax loolu fo rek la xam ne lii farata la mbaa lii ab sart la ci julli gi fàttewu ko te mën na ko mu tey ko bàyyi ko kooku day fo julli ba dal na yàqu yaari julli yu bokkaale waxtu te waxoon nañ ne tisbaaru takkusaan am nañ ak bokkaale ci waxtu timis ak gee amuk bokkaale ci waxtu ba jotoon na noonu leeral bokkaale ga na mu demee yaari julli yu mel noonu nag soo dee julli gu ñaareel ga fàttaliku ku jëkk ga te xam ne ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa kon gu ñaareel ga ngay julli day yàqu nga war a jiital ga jiitu doon ko caa teg moom mii nga ne boo julli takkusaan fàttaliku ne julli woo tisbaar te ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wi takkusaan mii ngay julli moom yàqu na faaw dangaa war a jiital tisbaar doora ñëw ci moom julli ko ba tey boo doon julli gee laata ngay sëlmal fàttaliku ne yow kat julliwoo timis te ñoom ñëpp xaj nañ ci waxtu wa kon gee googu day yàqu faaw da nga war a jiital timis doo caate gee googu su fekkoon na ngaa fàtte nag julli takkusaan ba sëlmal door a fàttaliku ne julliwoo tisbaar mbaa nga fàtte julli gee ba sëlmal door a fàttaliku ne julliwoo timis kon moom julli nga julli baax na dañu sopp rek boo jiitalee ba jiitu moom ci bopp nga baamuwaat ko ndax ñu susaloo tegaloo nañu war a tegaloo waaye da mu fàttee ko waral rek moom bu nga jiital te warta jiitu du ko tee baax bu doon nag yaari julli yoo xam ne amuñu bokkaale ci waxtu mel ne julli suba ak tisbaar boo doon julli tisbaar fàttaliku ne julliwoo suba lay waru gar mooy nga bàyyi tisbaar dem julli suba ba àggal door a ñëw julli tisbaar waaye nag tegale yaari mel noonu moom warugar la boo ko bàyyi am bàkkaar waaye taxul nag muy ab sart maanaam boo ko tawoon sax xam ne julliwoo suba nga njëkk a julli suba door a julli suba it du tee mu baax bu ci nekk wér na da nga am bàkkaar rek ci ñàkk gaa tegale bu ñu nee nag boo dee julli ak julli di fàttali ko ko jiitu gi nga nekk yàqu na dañuy seet bu fekkee ne amagoo ci lu matu ràkk da nga koy daal dagg rek dem julli ko ko jiitu door a ñëwaat ci moom su fekkee am nga ci benn ràkk nag moom te waxtu wa yaatu na say boo dool ci beneen muy ñaar nga jàppee ko naafila door a dem nag julli ko ko jiitu woon door ko caa tegaat waaye bu waxtu wa xatee moom donte amoon nga ci gi nga tàmbali ab ràkk it danga war a dagg rek daal di gaaw jiital ko jiitu door ko cee teg tawit kat julli bi nga xam ne moom ngay jiital te waroo koo jiital su fekkee dem nga ba sori ca door a fàttaliku ne ah moom kat waroo ko woon a jiital ni ki bu dee julli ñeent ràkk dem nga ba am ci ñett door a fàttaliku ne moom kat nga koy jiitu julliwoo ko mel ne ngay julligee ba julli ci ñett ràkk door a fàttaliku timis wala julli timis moom ñett ràkk la nga dem ba julli ci ñaari mat door a fàttaliku ne julliwoo nga ko jiitu ndegam julli gi ngay julli wartoon a jiitu waaye julli nga la ëpp ci rakkaam dañ lay wax àggale ko rek benn yoon da nga koy àggale muy sa farata ba noppi nag boo jullee nga ko war a jiitu ba noppi moom mi nga baamuwaat ko saa yu ñu ne julli gi nga jiital fàtte nga ba sëlmal waaye wartoon a jiitu ñu ne sopp nañ nag nga baamuwaat ko ci waxtu wa boo jiitalee ba jiitu ba noppi xamal ne waxtu wakat bu dee ci tisbaaru takkusaan day dem ba ci isfiraar maanaam takkusaani suuf bu dee timis ak gee day dem ba fajar fenk bu dee julli suba day dem ba fa julli suba yam rek muy fenku jant nga ci yàq julli nga juum ba yokk ca limu ràkk ya lu toll ne na julli ko toll woon mel ne suba mu ko ajjuma lu ci nekk ñaar ràkk la koo ci juum nag ba def ko ñeenti rakk day daal di yàqu ku mel ne tisbaar mbaa takkusaan ku ci ne ñeenti rakk la koo ci juum nag ba julli ko juróom-ñetti rakk julli ko yàqu timis nag ñett la waaye wax ji gën a wóor boo ci yokkee ñett mu juróom-benn du ko tax a yàqu la koy tax a yàqu rek mooy yokk ci ñeent mu juróom-ñaar waaye timis boo ko defoon juróom-benn itam wax ji gën a wóor du yàqu. saa yu ne li mu rakk ya nga yokk taxul julli ko yàqu kon na ngay sujjóot rek bax de salaam nee nañu wetar julli sunna la soo ci yokkee benn rakk rek du yàqu waaye boo ci yokkee ñaar nag moom dañ ko yemaleeg suba boo ci yokkee ñaar mu door a yàqu julli sunna nga xam ne yoon da koo sàkkal yemukaay boo ko tayee ba yokk ca rakk yu toll ne ay rakkaam mu yàqu mel ne korite mbaa tabaski ku ci nekk yoon da ko yemale ci ñaar ba sax ñaar rakk yu fajar nga xam ne raxibatu la yoon da ko yemale ci ñaar loo ci tey nag ba yokk ci ñaar xam ne tollanti nga ko ndegam yaa ko tey day daal di yàqu julli naafila ci des nag nga xam ne danga koy def rek ay ñaar ñaar boo ko teyoon yokk ko ba muy ñeent it du tax mu yàqu